suñuy vidéo nag foo leen toll réew mi wala si bitim réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li si réew mi si yaatu tey euh, mu mel ni Serigne Modou Mountakha def na la nga xam ne wóoyjëm yu baaxee daan nañ ko def muy saabu demee ba jamono am fu mu toll mu dajale yoon wépp ak kilifa yi ak dongo yi waxtaan ak ñoom dénk leen waaw ñu ngi sant yàlla bu baax Euh, di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér wëlbatikuwaat di sant yàlla bu baax ci fekke gi nga xam ne ñu ngi koy fekke euh, lii nga xam ne euh, ku ko am sant yàlla muy taw féexi di la dégal di la tere loolu boo gisee ni ko lislaam tërale benn bis rek war nañ ko war nga ko jee seq ki ki la yilif juróomi yoon ni waxtu yu juróom kon su dee def ba jëmmi jamono mu di ko yàqali ñi bokkul ak moom ay sàppe te bokkuñuy kër te mu te kilifteefam egg ci ñoom ñëpp moo tax mu di ko def kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax noonu bi ñu ko fekkee mu fekk nu Tuubaa gi tamit nu mën a wuy si mën a ànd ak moom ci liggéey bi te xam ne bu ci noppee ci la muy def lu lu la gën lu gën la muy def dana yëkkatiwaat jaam yi ci fi ñu toll woon yóbbuwaat leen ci beneen jéego loolu ñu ci sant yàlla bu baax a baax. Euh, sëñ Yaar nga tudd baat bu am solo muy kilifteef. Euh, dina loo xam ne mënees na ni gànjar la taar la euh, patrimoine la lu rëy la ci lislaam te tey yoonu murit nag di sant suñu borom bi nga xamante ni. loolee ñàkkuñu ko ngir gis nañ ne. ñàkk gi jafe-jafe yi nga xam ne indil na ko julli dañ jiitu woon. waaw loolu xam nga li ci li li li li ci lislaam bi def. mu nga tàmbalee ci sunu maam ñu tàmbalee ci sunu maam Adama mu liggéey ko bàyyi ko fi ñu koy toppante ba mu agsi fii ci nun nun nag li ñu war a sant yàlla ci kilifteef mooy sawar gën ci sawar sawar gën ci sawar nga xam ne moom buñ nee sëñ bi de woote na ak lu mën a tax sëñ bi woote na ñëpp am nañ ca mbégte ànd nañ ci jëkke suñu koy dégg lu mu wax ñu def lu mu tere ñu bàyyi loolu nag bi mu ñëwee ba ci sëñ Touba. kon euh, loolee tàmbaloon ci sunu maam Adama bu ñëwee ba ci sëñ Touba dafa mel ni dafa farankulaayu fa fa saxte dootu fa jóg kon yaakaar naa xaw ma luy jafe waaye jëfe ndigal ci yoonu murit moom am te te mënee su ko te amoo kilifa lu yomb lay doon. Euh, sëñ Atou euh, xanaa benn baat rek mu jëm ci wàllu organisation bi gis nañ ni tey. Hmm. nii kër Serigne Touba gi mel mbooloo mu takk war fee daje. Euh, gan sax tàbbiwaat fi muy njiitu réew mi mel na ne loolu euh, wane na tey ni yoonu murit nosoo mhm. ndax yaakaar naa ñi fi ñëw gis nañu lu sedd seen xol ci mhm. organisation bi ci mbooloo mi ci wattaay bi ci barab bi ci fànn yëpp waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax lépp dafa day ci baat bi nga waxoon kilifteef bu amee yar am na teggin am na te yoon wi am na lépp yoon wi am na lépp euh, moo tax bu fekkee kenn ku ne ka war a jiitu jiitu ka war a topp topp Ah, nim bu topp bu taftalantee ci fa mu war a taftalante jàll ci feneen taftale na war a taftaloo foo dem na nga fay fekk organisation bu baax ñuy sant yàlla bu baax a baax euh, dellu di xam le ne euh, kilifteef googu tax na ñi nga xam ne waru noo bar a bokk ak ñoom jataay ña nga ca jataay ñu ngi jataayoo ngir nun euh, nun tam fa nu nekk noo ngi jotaayoo ngir mën a déglu ngir mën a jëfe ngir nga mën a mën a xam li ñu tollool ñu toll foofu